qui ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne di ak ci TV. mbokk tey vidéo bi dañoo fas yéene waxtaan ci coow li nga xamante ni moo am ci biir cantakun yi ba fiy góor gi bàyyeegoo ba tey euh, heure bu ñu xëyee rek division bi di gën a tar. ginnaaw atu yàlla bu tegal weer ci la kii di becc Béthio Thioune waa di wàcc liggéey bàyyi fi nag njaboot boo xamante ne njaboot gi fi mu nekk nii ci tasaaroo la gën a jege heure bu ñu xëyee rek ñu ngi gis loo xamante ni daf ñuy gën a di yéem tasaaro bi nag dara waralu ko lulul nag coowal héritage héritage bi nag ñaar la benn bi ñi ngi xëccoo toogu bi ki nga xamante ni moom moo war a nekk xalifa ku ni beneen bi mooy euh, wàllum alal dinañ si ñëw nag ci lu mu gën a yaatu ni ñu leen ko waxee léegi ginnaaw euh, atu yàlla ba fi kii di euh, Cheikh Béthio Thioune daal di bàyyeekoo mu bàyyi nag ci ginnaawam ab doomam bu góor muy taawam moom mu taxaw ni moom mooy ku war a mën a dond bàyyam ci ay vidéo sax gisoon nañ ko ci Cheikh Béthio di ko xamal naan ko yow yaay sama taaw boo ma Khalifa xalifa ñu seetlu en général bu fi nit bàyyeekoo sa taaw moo lay don rawatina bu dee góor la ba ci kër sax loolu lu ñu yàgg la te bi nga xamante ni moom la ñu jàpp ni moo ko war du kenn ku la ñu naan euh, Serigne gël waaye nag dafa am loo xamante ni moom mooy ñuul ci soow mi am na si ñoo xamante taxaw ne ñun ñi fekkee ñu si boole ñoom tamit ñu taxaw dagg seen langue ñu ne kat ñun la cheikh bi doyloo ñun la cheikh bi samp ba ñun ñooñu ki nga xamante ni ku leen jiite mooy euh, soxna ayda Diallo ànd seeg ñaar ci ay wujjëm yi nga xamante ni kenn ki moom la ñuy wax soxna Batoor kenn ki moom la ñuy wax soxna Adja Déthié pen ginnaaw nag ba ñu jógee ci màggal tubaab bi passé mu nekk coow loo xamante ni Sénégal bi yëpp daanaka coow nañ ci muy rek Euh, magal bi nga xamante ni di ànd ak euh, soxna Aïda Diallo defoon nañ ko fële ca Ngaabu mu nekkoon loo xamante ni naqari na askanu murid yi bu baax a baax ci rek puukare bi nga xamante ni moom lañ fa sax na ba yëkkati euh, xolu sëriñ bi mu si ay kàddu yii. soxna Aïda Diallo li ma ko Limu fii leer nañ li ma bëgg sama li nu bëgg sama bopp noonu leen bëggal li nu bañal leen bañal seen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 Gotoran hangi gotoran şey, baa ngi bu yaay ñëpp waaw ku bëgg a dem jaar ci mën nga dem mën nga dem ama ku jaar nag fu la neex di féetal di def la neex loolu yoonu kenn nekku ci yaag yàlla yaag sa bopp loolu dëgg la xat ga sax dul ko sa xeen waaye nag xam nan xam xam xam xam nan la la xam nan yoon fa fa yoon moom nu jaarloo xam nan ko nan ca tegu rek ak nun doon nun doole ak nun ñàkk-ñàkk su nan doy nan tegu ci yoon wa rek moom ñëpp a koy nun moom suñu bopp fi mu ne ginnaaw jees yi moom amatul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 boo jëmee sëñ bi sëñ moom am na fula du juyewul ak boromam ci musta juyee ak boromam ci dara dara dara dara dara du réeru ak li boromam bëgg moom la bëgg li boromam bañ moom la bañ li moom la digle li borom tere moom la tere looy xam nag noo lay ndax nag comme na looy ndax na nekk mën na caa nekk boo gisee moo xam ca boobee xamoon lii rek la xam na lépp ngi ci biir lépp ngi ci biir ñun ñi ñuy wax ak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 yooyu nekk ay kàddu yoo xamante ni euh, mer la woon kii di euh, sëñ bi ba mu jukka génn wax lu nu mel ginnaaw loolu nit ñi doon xaar ay ab dal ci ki nga xamante ni moom mooy euh, soxna Aïda Diallo ak ñi nga xamante ni ñoom la àndal ba loolu sax jaroon na soxna si génn moom tamit daal di jéggalu askan wi yëkkati woon kàddu yii day kàddu ndongo kàddu taalibe boo xam ne amul lu dul Serigne Touba bëggul lu dul Serigne te it lu dul sëriñ Touba it yitteelu ko kàddu yi nga xam ne nag moom laa yëkkati muy kàddu tuub ki sama diggante ak xalif général des Mourides muy sëñ Muntaxa Bachiru Mbàkke di tuubal ci xam ak lu xamul di tuub ci lépp loo xamante euh, fi te muy loo xam kat ak matadi doomu aadama la maa ngi ko ciy tuubal bu baax di ko jéggalu wax ne man day ci ndigal rek laa aju moom day li ma ko wax rek day sëriñ ci ñun ndax moo fi toogal sëriñ Tuubaa day woy jurit ci ñun lépp loo xam ne doxin la wala waxin bu dëppoowul ak li muy digle mbaa la muy tere moom day ñoo ngi ko ciy tuubal te di ki tuubal mbooleem umma islamique bi waaye di ci tuubalit mboolem yoonu murit moom daal maa ngi tuub maa ngi tuub maa ngi jéggulu te di ko seereel sëriñ Touba ne tuub naa lépp loo xam ne lu ko naqari ndax yitte bi day du def lenn lu ko naqari maa ngi wax ak nag sama mbokkum taalibe yi nga xam ne maay seenu jëwrin di leen wax ni moom day li xale fi bëgg rek moom de lu mën nañu moom la bëgg mbaa lu mën nañu moom la bëggul ci loolu lañu fas yéene ne tuubal ko te déglu ndigalam te dégg it li nga xam ne mooy ay tareem ñu moytu ko la nga xam ne mooy ay ndigalam di bëgg a bëggam ñu soobu ca maa ngi leen maa maa ngi nuyu ñëpp. loolu nag. nekk ay kaddu yoo xamante ni yu doy waar la ndaxte kat si seetlu est-ce que ki nga xamante ni moom mooy euh, soxna Aïda Diallo lu mu wax mooy kàddu jéggalu yooyu est-ce que jëfee na ko ndax kat bu fekkee jëfewu ko woon du ñu dem dugg ci seen biir di créer seen groupe WhatsApp waanaam lu nekk lañ sax lañ fay wax groupe WhatsApp boo xamante ni dañ leen may sax tuuti ngeen déglu luy xew ci biir groupe de WhatsApp yi. waaye wax dëgg yàlla bi ñu tontu ay naxasaxandan waaw li ñuy wax lépp dara amu ci dara amu ci xalif général ma woo wuy naa ko wax naa man à huis clos teral na ma mbég laa fa jëlee aku cant li ma fa jëlee nag du lu may leeral lu may dox la di teg seen bët kon maa ngi leen di woo ci noppi ci régler waaw ci ci jëf jii ñu ma muy muy gàmm gi ñu lijjanti ci ni doole Serigne Béthio ba matale ko waaw te jàll nag ci li nga xamante ne nag moy université bi nga xamanteni moy bi mu yëkëti te te jëmale ko ci Serigne Touba ma ngi len ci wo te bëgg na message gars ñi bàyyi leen message yi génne groupe yi bu mu génn groupe bi groupe bi ñëpp ngi fi daanaka ku ko fi dégg dégg ko fi te bo pare nga bako fi wax jàngu jàngeen jëf. soxna Aida waxoon naa ko ni ko fii li mu bëgg seen bop li mu li mu bëgg suñu bop rek li leen bëgg li mu bañal suñu bopp moom la leen di bañal. loola tok na wax ko waye ni ma dégg mu waxe ndax man da du tumbe légui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 loolu loolu gi rek ñoo ñaam boobu sañ-sañ te ñoom bokkul ak ñoom ak jublu ak ak doxin ñoom doxin adduna la ñuy doxal noonu nag yàlla doxin di yàlla doxin doxinoo nit ki jëm ci yàlla noonu lañ doxal. Sénégal ati com. barkeb Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Béthio jërëjëfaat Serigne Béthio Serigne Béthio amul dendandoo sëriñ Béthio amul dendandoo. sëriñ Béthio amul dendandoo mbokki taalibe yi waa Touba kër sëriñ Touba maa ngi nuyu ñëpp di leen wax ni groupe bi moom na ñëpp quitté fi nekk nii am naa lu ma wér na ñëpp quitté te di wax jëwrin yi nii nag sëñ bi lim ñu waxoon ne fréquenté informé encadré euh, jot na day mel ni nag ah mi ngi doog a tàmbali kon na ñëpp jaajuwaat te xam ni. Euh, whatsapp bi moom warul doon lay pour liggéey bi bariwaana sax ñu daan jaawale daara ak whatsapp kon na ñépp jaajuwaat te xam ni góor góorlu daal ku ci ne xam nga li la war ñu ànd ak mbooloo mi ne ci liggéey bi ni ñu ko sëriñ bi sante waaw kon na mbooloo mi quitté waaw ultérieurement nuñ ciy doxee di ngeen ko xam barkeb Serigne Béthio barkeb Serigne Béthio barkeb Serigne Béthio sëñ Béthio jaam Serigne Saliou bi yal na fi yàgg sëñ Béthio sunu yaakaar tey ak yal na fi yàgg loo téwén ñuy tuubalaat Serigne bi ci lépp lu mu xam ak loo xamul di ñaan mu yàgg fi loo téwén maa ngi ziar jëwriñ yi ak universel yi eh, di santaat Serigne Saliou bu eh, ma di leen wax nag yéen jëwriñ yi yéen universel yi man de dinaa leen wax loo xam euh, na ngeen ci bàyyi xel euh, universel Cheikh Mbacké Thiam les polyvalents euh, soññeem bi mu dugal sànq sa groupe bu mag bële soññeem boobu mu ngi ci internet bi ñu jël photo soxna si taqale ko audio bi te gaay groupe yi nañ koy saytu te loolu day depuis màggal ga ba léegi war ngeen a wan a saytu group yi baa ngeen defaraat yeneen group yu bees groupe yi ngeen di soññee liggéey Serigne Touba yi nag bu fekkee lu ci wax loo leen ci wax mu génn dem ci internet bi na ngeen xoolaat seen toogaay ci biir yéen naa Daaru Salaam Fawzeyni parce que ci seen group yi rek lay amee surtout groupe bu mag ba wax boo leen fa wax génn mi ngi ci internet bi polyvalent li mu dugal léegi di wax ndigal yi. si tente bañ a am si mbedd yeeg yooyu lépp ci biir kër gi loolu mu ngi si internet bi léegi laa ko déglu message bii nag na ko ñépp déglu te jàllalante ko ci seen biir te ngeen way deng te xam ne seytaane de sëriñ Saliou Mbacke daan la wax naan kuy tëru kuy teggee ca gën te xoolaat group yi nag bu baax xoolaat mbooloo mi waaw ñun kat xam nañ lii lii defloo lii xam nañ ñu koy def waaw génnul ñun cantaako ni ci suñu biir muy ñu ànd ak ñëleeg ñu ànd ak ñii waaye lii xew ci sunu biir lay xewi loolu lu mat a leeral la am na ñu ne fee di ne ci groupe yi te xamoo leen ko kon saytu leen seen group yi sur le fond jëwriñ boo xam ne nii jëwriñu Daaru Salaam Fawzeyni nga ngeen ubbi groupe dugal ci jëwriñ yooyu képp jëwriñ yi di informer mbooloo maa ngi tuub ci kàddu yi di santaat sëriñ Saliou Mbacke di ñaan sëñ Béthio jaamu sëriñ Saliou yàgg fi lool te wér senegalactu.com mu nekkoon ay kàddu yoo xamante ni moom lañ leen rootaloon ci yenn si ay groupe whatsapp yi nga xamante ni créel nañ ko ngir rek euh, di fay nase ay pexe waaye lu ci mën a am rek nañu jàpp ni ñii ma gis nii wala ñi ma dégg nii nekkuñu ñoo xamante ni ñoom ñoo pare pour bàyyi lu ñu mel ndaxte kat ginnaaw ba ma leen waxee ne leen coow li ñaar la am na loo xamante ne moo jëm ci wàllum alal bi nga xamante ni moom la fiy cheikh bi bàyyi jëm ci wàllum ndonoom mu nekk nag xëccoo boo xamante ni doom yi nga xamante ni ay doomu boppam lañu ak ñi nga xamante ni ay soxnaam lañu woon nga xamante ni jàpp nañ si kii di euh, soxna Aïda ak ki nga xamante ni moom mooy soxna Botor ak kan euh, soxna Adja pen nyom ñoom ñett ñooñu sax mu mujjee lim ñoom jàpp nañ ni alal bu fi euh, Cheikh Béthio bàyyi ñoom seen alalu bopp la ndax ñoom lañ ko mayoon dem nañ sax ba kii di soxna Bator di wax naan lii ñu tuddee village du 17 nekk fële ci Madinatu Salaam ci loxoom la ko cheikh bi teg laata moo génn àdduna loolu nag mi ngi amee ci 18 avril 2018 jamono jooju sax sëñ bi mi ngi tëddoon wopp njaboot gi nag ci njiitalu kii di euh, Serigne Saliou Gueule Tapée ànd sekk Serigne Khadim Thioune ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñooy seen rakk ñoom taxaw nañ ni alal yooyu yëpp nga xamante ni moom la fi seen bàyyi bàyyi dinañu ko récupérer ba képp ki nga xamante ni war na ci am lu ci war a am rek ñu jox la ci leneen lu ñu ci war a mën a wax tamit euh, mooy ginnaaw ba coow luy jugee fitna it jug na ay naxte ay yàqu-yàqu bari na fi lool gis nañ euh, oto bi nga xamante ni moom mooy kii di rakku euh, Serigne Cheikh Béthio Thioune nga xamante ni benn rakk boobu rek la dese ci kaw suuf oto bi nga xamante ni ni ñu ko caxa-caxatee jël brique ci leneen loo xam ne aussi seetlu nañ ko muy kii di ancien député di Serigne Khadim Thioune di si Serigne Saliou Gueule Tapée di doom tamit ci cheikh bi moom tamit gis nañ këram li nga xamante ni noonu la ñu ko tojee ba nga xamante ni lii bu ci autorité compétente yi jugul yaakaar nañ ni luy raam nag ci njàgbal la jëm te bu fa amee amee kër du fa gaaw a jóge waaye leneen loo xamante ni tamit jaaxal na nit ñi parce que d'habitude bu coow yi daan bare nii nit ñëpp Aïda Diallo lañ daan wax am Aïda bàyyil Aïda jàppal ayda bi yoon nag kenn dégg ko ci kuñ ci dégg mooy soxna Batoor ñu ngi laajte nag fan ayda Aïda nekk ndaxte ñu bari ñu ngi naan lu sëriñ bi wax ne bu mu waxati loolu moo waral waaye may jàpp ni euh, loolu taxul jamono jii may wax ak yéen Aïda Diallo mi ngi tëdd dafa euh, feebar mi ngi entré ci benn euh, clinique bu mag bu nekk fii la ci Ndakaaru keneen koo xamante tamit daan nañu koy dégg muy Adja Déthié Pène ñu gën ko xam ci turu Adja Saliou moom jamono yële si woloon nañ euh, diggante sëyam ak euh, benn jëwriñ euh, bu mag bu nga xamante ni mi ngi nekk fële ca Bordeaux moom si jamono ji si sëy boobu la nekk ba nee nañ sax yaram bi dafa sutante moom tamit jamono ji laaj bi nak moy, ndax autorité sénégalaise yi dañoo fas rek taxaw di sétane ba musiba bu ñëk amon nga xamanteni ni na fële te Medinatu Salaam ba ñaari bakkan rotoon si ndax autorité dañuy tok di sétane rek di xaar lu nu mel amaat am deet parce que kat li yoon la ñu gaaw bok jël ci ay décision parce que lu ñu gis nii bu ñaaree mom euh, du baax gannaaw ba ay xibaar yi nga xamante ni euh, jot naa ko ci njabootu euh, Serigne Saliou Gueltapé Tapée ñoom euh, dogu nañu fi mu nekk nii bañatuñu ci dara ngir rek récupérer li nga xamante ni moom la fi seen bàyyi bàyyi te ñee nga xamante ni taxaw nañu lépp lu ñu yor sëriñ bi moo leen ko bàyyeel moo leen ko may ci mbaaxam lu ci mën a am nag jàpp nañu ñii di waa gendarmerie de Mbour ak procureur bu Thiès yoon la ñu jug addu ci lu ñu mel kon nag gaañ yi loolu moo nekkoon vidéo bi nga xamante ni dafa nañ leen quelques sélection ci ay audio yi nga xamante ni jotoon nañ kaa yor sax ba am na si yoo xamante ni aussi jotoon nañ kaa publier ngir rek fàttali leen li nga xamante ni coow li fa la tàmbale woon du ñàkk ay waxtaan yii di ñëw dinañ si ñëwaat gën kee yaatal parce que am na ay information yoo xamante ne ñi ngi koy xaarandi bu ñu ko jotee dinañ leen ko dégtal lépp rek jëm ci coow li nga xamante ni moo am si diggante ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak euh, Serigne Saliou Gueule Tapée ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo àndal soxna Aïda euh, Diallo mu nekkoon euh, waxtaan bi tey di leen ñaan aussi ngeen continuer di abonné si suñu chaîne YouTube di Sénégal Actu TV ngeen bës si cloche bi ngir yeneen vidéo yi ñëw ngeen am notification bi bokk si ñu koy njëkk seetaan gaañ yi jërë ngeen jëf. ngir yombalal len ngeen mën di jot information bu wér te wóor ci anam yu mu gën a gaawee loolu tax na Sénégal Actu gën a joyantiwaat application bii di Sénégal Actu ngeen mën ko télécharger si Google Play wala Play Store rek xibaar dootu la rawati li nga bokk si ñu koy njëkk a am mën a bouger ak moom en toute liberté ndax rek mooy application bu lay informer lu jëm ci wàllum économique politique santé culture sport people maanaam daal bàyyiwul dara application bii télécharger ko daal mooy lu wóor